بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله فسبحان الله رب العرش عما يصفون
bu ñaareel bi nag mooy muñ ñoom ñaar nag dañoo lënkaloo kii mën a muñ mooy kii sant borom bi ne innama yuwaffa saabiruuna ajrahum bi xayri xisaab nee na muñkat yi bu leen di fay du ko réglé dañ leen di fay ba mu bat rek ñu ne ahlul balaa laysa lahum miisaanu ñi nga xam ne moom ay nattu lañ amoon te muñ ko kenn du leen tegal balaas muñ nag li muy tekki mooy alxabs wal kaf mooy nga tëj sa bakkan ci lu ko naqari nga tëj ko ca téye ko ci gis nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom naan ko wasbir nafsak wasbir nafsak ma allazi ay ihbis nafsak tëjal sa bopp ma allazina yad'una rabbahum bil ghadaati wal asiyi yuriduna wajha notal sa bakkan ci nangoo toog ak ñooñu nga xam ne ñu ñàkk lañ ñu tumuranke lañ waaye nag yàlla rek la ñu gëm suba ngoon ñi ngi jaamu yàlla li ñuy ñàkk ñàkk situation wu àdduna na nga nangoo toog ak ñoom xam na am na kilifa yoo xam ne du ñu recevoir koo xam ne ku ni ku néew doole la ku amul benn personnalité bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam nag ndax dafa metti waaw dafa metti koo xam ne sax seeni waxtaan du mën a du day jafe sax mu déggoo parce que ngay egg ci niveau boo xam ne yow ci lijjanteeg na ngay waxtaaneeg fa ngay waxe am koo xam ne moom waxtaan wa muy waxtaan wu suufe lay doon woo xam ne xëy na jaaroon nga ci waaye gëñ nga ci lool fekkee yow yaa ngay dem Londres yaa ngay dem New York yaa nga ca réunion ya recevoir benn waaye boo xam ne mu naan la daal sama fas wa daal moom moom bu amoon ngooñ rek ngooñ bi daal daa manqué fi mu nekk waaw xam nga loolu day metti lool nga waaye wàcceel saf nga waxtaan ak moom ci mbirum ngooñ waxtaan ci ne ko ah waaw ngooñ amul saalum amul barab sàngam waaw ba bam ba mu yëg waaye nga ah daal di du mooyu fële wala nga daal di wax yeneen wax wax ak keneen loolu baaxut loolu la suñu borom digal yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wasbir nafsak ma alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asi yuridun wajh waaw léeg-léeg mbokki commerçant yi nga xam ne xëy na bu yàgg lañ ñëwoon ba yàlla dafa leen xéewal léeg-léeg ñu am gan ñu mel noonu léeg-léeg ñu am gan ñu mel noonu fekk la ci magasin bi gars yi wër la ngay wàccee ka kii moom mu ñëw di waxtaanee jiwu manqué waag yooyu su ko defee nag ah waaye jàppale it fa nga jóge woon nag loolu gars yi wax malaaka la xanaa xaw ma la woon yow nga doonoon nàngam joo xam ne abbu nga doon fas bataay yi boo demee waaw loolu loolu man daa bàyyi xel loolu ci sant yàlla la bokk moo tax xadis bii ñu nettali na ko nit ki teg ci kanamam bu lu mel noonu bu koy bëgg a gaaras rek na fàttali ko ndax kat yàlla mu delloo la ci situation ba lu ko yomb la lu ko yomba yomba yomba yomb la waaw wala bu la ca delloo wutit alal jooju nekk fitna ci yow kon muñ mooy nga not sa bakkan ci topp yàlla waaye téye sa bakkan itam ci mooy yàlla moo tax dañuy wax day jàggatee ala ak an asabru ala taatillah wa sabru an maasiyatillah waaw muñ topp gi ngay topp yàlla ndax topp yàlla it dafa metti ci bakkan lu mel ne lii nu def tey woor nii topp yàlla la di xiif di mar te doo lekk doo naan ah loolu ku muñul doo ko def te foog nga muñ asabru ala taatillah yow fajar di julli dem ca jàkka ja julli ji heure boobu nii nelaw neexe moo tax sax ñuy wax asalaatu xayrun min an nawm fàttalaa nelaw neex na waaye julee ko gën de asalaatu xayrun min an nawm soo ko déggee rek fekkee gëm nga yàlla da ngay def bëri dootoo mën a toog soo déggee baat boobu moo tax ñu bari war nit ñi war nañu xam lu mu tekki menace la de tëkku la de yow mi ñoddi waat sa mbalaan dégg nodd ga ba noppi nga tëddaat ñu ne la assalaatu xayrun min an nawm jullee gën nelaw du moroomam sax waaye nag gën moom gën dafa mënta weesu gën rek moo tax ñu jëfandikoo baatu gën waaye lam ko gën a kenn xamul nu mu toll waaye nag gën moom gën rek la mën a doon yonente bi sax boo wax naan moo la gën rek yonente bi nu gën rek lañ mën a wax ak li nuy soreeg moom lépp lépp baatu xayrun rek lañ mën a wax waaw kon nit ki itam daa war a muñ dogale yàlla yi da ngay muñ topp yàlla yi muñ mooy yàlla yi wattandiku ko waaye muñ itam nag dogale suñu borom tabaraka wa taala moo tax ñu ne joxuñu doomu aadama may gu gën a yaatu muñ ku yàlla may nga mën a muñ kenn ëppalewu la ak may ki nga xam ne mi ngi yar bakkanam di muñ mooy yàlla yi du ko jege ak lu mu dëpp lu ko bakkanam bëgg bëgg bëgg day mujj tàmm loolu ba mu nekk habitude ci moom ki nga xam ne itam day muñ dogali yàlla yi day mujj nekk ci rida day mujj egg ci rida parce que rida boobu ñu wax danañ ci egg si beneen daraja la bu ne ci kaw muñ mooy da ngay dem ba mujj gërëm lu la suñu borom tabaraka wa taala teg loola neex la nga gërëm ko ànd càkkub dal moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ab jullit léppam yiw la in asaabathu darra sabara fa kaana xayran lahu wa in asaabathu sarra shakara fa kaana xayran lahu nee na jullit daraam pertut bu ko lor dalee mu ñàkk mbaa mu feebar mbaa mu tumuranke mu muñ lépp di tuyaaba bu amee xéewal sant te mooy jëfandikoo ko fa yàlla bëgg ba tey mu nekk lépp nekk yiw ci moom doomu aadama suñu boroom dana ko nattu ci boppam nattu ko ci njabootam nattu ko ci alalam nattu ko ci ay àndandoom wala nablu wannakum bi sharri wal xayri fitnatan wa ilayna tujo waxat ne wala nablu wannakum bil juu bil xawfi wal juu wa naqsin min al amwal wal anfus wal samarat wa bassiri sabirin alladina ida asaabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilayhi rajiun kon borom bi tabaraka wa taala yooyu mu lim yëpp daf ñu ciy nattu dañuy nattu ci ragal nattu ci xiif meññet mu manki naw bu nawet bu ñàkk a yegg ay bakkan yu fi jóge waaye nee na bégalal ñi nga xam ne dañuy muñ wala nabluwannakum bi cheyin min al xawfi wal juu wa naqsin min al amwal wal anfusi wa samarat wa bashir sabirin alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillah wa inna ilayhi rajiun nee na bégalal muñkat ya ya nga xam ne bu leen musiba dalee ñu ne inna lillah wa inna ilayhi rajiun nun de yàllaanu moom te ci moom la ñuy dellu abdullah mi ngi wax ne dama ñëw ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na fekk mu am lu koy metti mu mel ne kuy wonk li ma ne ko ah yow de yaa ngi wonk wonk bu metti mu ne ko ni may wonke wala li may yëg mooy li ñaar di yëg ci yéen ñaar ci yéen bu ñu feebaree la ñuy yëg ca mettit feebar ñoom ñaar man ke- man loolu lay yëg man kenn mais ma ne ko kon de kon da nga am ñaari yool mu ne ajal moo tax yàlla ñaari pay tuyaaba la may fay dal ne ko ma min muslimin yusibuhu adan shawka fama fawqaha illa kaffara allahu biha sayiatihi kama taxuttu shajaratu waraqaha mu ne ko amul benn julit boo xam ne lor dana ko dal mu muñ ne ko tàmbalee ko ci déggu ko jam ba ci lu gën a kawe ak dégg nee na lu dul suñu borom tabaraka wa taala faral ko ci bakkaaram comme garab ni xob yey ruuse bu fekkee dafa wow ci bis bu mbóoya garab gi xob yi wow ba pare mu ngelaw xob yépp day def ruteet ci suuf nee na noonu muy sotti ko noonu la bakkaaram yi sotti ko sotti ko su rafetalee ak mu ñëw moom abdullah moomu waxoon na benn jigéen ci saxaaba yi ne ko yaa ummal ala abshiri fekk mu feebar lool mu ne ko fa inna maradal muslim yusxibu llahu bihi xataaya kama tusxibu naaru xabas alxadid wal fidda mu ne ko bégal feebaru ab julit bu ko muñee rafetal muñ ga yàlla da ciy far ay bakkaaram comme safara ni muy dindee lu taqoon ci wurus wala xaalis bu ñu ko duggee ci biir safara bi bu ñu ko dóoree rek lu ca taqoon te bokku ca day dañ mu ne ko nag noonu la suñu borom tabaraka wa taala di teggile ab jullit ay bakkaaram ci feebar bu ko dal boo xam ne rafetal na muñ ñu jëlee ci abi hurayra radiallahu anhu yonente bi alayhi salatu wasalaam ne maa yasaalu lbalaau bilmumin walmumina fi nafsihi wa waladihi wa maalih atta yalqa allaha wa ma alayhi qatia mu ne ab nattu du bàyyi julit bu góor wala julit bu jigéen nattu di ko dal di ko dal ci boppam di ko dal ci njabootam di ko dal ci alalam waaye mu rafetal ak muñam nee na bis buy dajeeg yàlla du dese dara ci bàkkaar moo tax kon ku yàlla teg ay nattu da nga war a rafetal sëg muñ te xam ne la mu lay teggil ci ay bàkkaar moo gën ci yow fuuf coono boobee ngay daj Aïcha radiallahu anha ju jële ci moom mu jële ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne ma min muslimin yusaaku bi shawkatin fa ma fawqaha illa xattat min qatiati amul benn jullit boo xam ne nee na dég dana ko jam wala sax lu gën a metti ak dég nee na lu dul ñu sippil ko ciy bakkaaram ñu jële ci abi saidin alxudri radiallahu an mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na sudaau lmumin aw sawka yusaakuha aw shay'un yu'zih yarfa'uhu allahu biha yawm alqiyamati daraja wa yukaffiru biha anhu dunuba yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne sibburug ab julit bopp buy metti nee na wala déggu ko jam wala lépp loo xam ne lu ko lor la bu rafetalee muñ ga suñu borom da ko ci yëkkatil daraja yawm alqiyam sippil ko ci ay bakkaaram ñu jëlee ci anas ibnu malik radiallahu anhu mu ne dégg na yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne inna allaha qaala ida btulitu abdi bi xabibatayhi fa sabar awattuhu minhuma aljanna suñu borom tabaraka wa taala ne bu ma nattoo sama jaam ci ay bëtam ay bëtam muuru mu silmaxa nee na mu muñ suñu borom nee na aljanna laa ko ciy faye ci bëtam yooyu mu ñàkk nee na bu rafetalee muñ nga rek aljanna laa ko ciy faye ñu jële ci abi xorera radiallahu an mu jële ci yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne inna arrajula la yakunu lahu inda allahi almanzila fama yabluquha bi amalin fama yazaalu allahu yabtalihi bima yakrah atta yuballiqahu iyaha yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne jaam bi dana am daraja bu mu war a am fa suñu boroom tabaraka wa taala waaye nag ay jëfam yëggaliwu ko ca jëful jëf yu ko eggale ca daraja booba waaye nee na du deñ yàlla di ko nattu di ko nattu muy muñ ba ci natt yooyu lay eggee ci daraja boobu nga xam ne ba mu waroon a am la ci diine te jaamuwul yàlla jaamu yàlla gu ko eggale ci cër booba kon ay nattu dana la eggale ci cër boo xam ne bu doon say jaamu yàlla rek doo fa yegg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ak jigéen ñi ne leen ma min kunna imraatun tuqaddimu salaasa min waladiha illa kaana laha xijaaban min annaar yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne amul benn jigéen boo xam ne da nga jiital ñett ci say doom nga am ñetti doom yu faatu nga rafetal sag muñ lu mooy ne nee na doom yooyu dana nekk sa kiiraay ci safara am benn jigéen bu ne ko was na tey nii ne ko bu dee ñaar nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko même bu dee ñaar kon ku am doom da ngay ñaan mu dund te barkeel waaye bu ko yàlla jëlee itam nag nga sant te muñ te xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu boroom jël na ay doomam ci seenu ndaw li ëpp ci ay doomam jël na leen ci seenu ndaw moom doomam yu góor yépp sax ci seenu ndaw lañu des nekkuñu ay mag kon loolu itam boo rafetalee muñ ko rek dafay nekk njariñ ci yow loolu ñu tuddee ko yara dal buy ko ay doomam di faatu ñu ne moom dafa yara dal mooy daal dafa amut ñàkk na nit mën naa am ka am mooy kay doomam dem ndax ñii suñu màggee xamoo nu ñuy mel mën naa am sax ñu jural lay bàkkaar waaye li nga xam ne moom jotut a def bakkaar ba noppi dem kooka moom mooy ki nga am dëgg moom ndax borom bi du neenal benn jëf yaay ji ëmb gi mu ko ëmboon yàlla da koy fay doom ji jotut a màgg ba defal ko benn teraanga ak coono bi mu dajoon bi mu koy jur ak nàmpal gi mu ko doon nàppal lépp yàlla da koy fay baay bi itam coono bi mu doon am yépp jaaxle yaag yitte yaag dépense yaag yépp yàlla da koy fay kon ahadis yooyu ak yi nga xam ne ñoo bokk ak moom maanaa dañ ciy bégal ab jullit mu war lu ko dal ci nattu lu ko dal ci musiba mu xam ne ci borom bi tabaraka wa taala la jóge moo tax ñu naan inna lillah nun yàllaa nu moom comme yàllaa nu moom nag sañ na noo teg lu ko sob waaw bu ñu la fekkoon ngay rendi sam xar ñu ne waaw ah yow lu tax ngay rendi xar mi li ngay tontu rek mooy maa ko moom saam xara loolu rek ngay tontu boo ko waxee rek mu jeex sam saam xara sañ naa ko rendi waaw yow itam kon yàlla gom nee nga yàllaa la moom nag inna lillah yàlla moo nu moom kon kay lu ko soob war na nu koo teg mën na nu koo teg bu ko soobee te nag moom nag tegu la sax ngir mbugal la ndax nag ñun dund bi ñoo ko bëgg a calculer fii rek mais yàlla moom sa dund bépp la la la jàppe benn benn mbir léeg-léeg ñu métaltel ci benn étape pour régler beneen étape ca kanam watax léeg mu teg la nattu yoo xam ne comme fii ci àdduna moom mbiram daa gàtt loola fi mën a dal itam du yàgg àdduna yàggut te alaaxira moom dafa yàgg moo tax mu pour fegal la mbirum alaaxira lu yàgg natt yooye mu teg la fii ci àdduna loo xam ne da nga ciy mucc ci mbugal ma nga xam ne moo gën a métti ëllëg ndax dundub àdduna bi boo ko seetoon ci li ñu war a dund lépp bu fekkoon dañ ne cent la ñuy dund dundub àdduna bi motu ci sax zéro virgule un pour cent boo seetee la ñuy dund alaaxira ak li ñuy am fii ci àdduna nga boole lépp motu ci loolu te ci lim bu néew boobu nag ci nga war a amee lu jagal dund bu gudd boobee bu yàgg boobee mu tax léeg-léeg borom bi teg la ci loo xam ne tuyaaba la lay jural foofu borom bi tabaraka wa taala delloo wax ne wa ma asaabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum te nag sax nag musiba borom bi nee na lu leen dal ci musiba rek yéen a def sabab bi musiba moom yàlla jékki-jékkiwu rek programme di wàccee musiba déedéet musiba boo gis doomu adama yee def sabab bi te sax dana ko wàññee wàññee wàññi ba lu ñu àttan des ca mu teg leen ko ngir ñu jàjj ba duñ ko defaat ndax da bu fekkee musiba mu waay def conséquence ya ciy juddoo doo ko yëg nga continuer def beneen continuer def yu garaaw moo tax mu ne zahara al fasadu fi l barri wal bahri bi ma kasabat aydi nnas li yusiqahum baad baad allazi amilu gis nga baad la wax da leen di moosal lenn ci li ngeen def ndax lan laallahum yarji'un ngir ñu dellusiwaat ne ah nun kat sunu ñàkk a taw géeg sunu bekkoor beeg yooyu kat sunu càggante gii la càggante gii ñuy def pomu bari miig caaxaan yu bari yii bu ñu amoon xel toogaat xalaataat ne kon moo nu teg coono yu metti yi ñu nekk su ko defee ñu tuub waaye sax mu ne wa yaafoo an kasiir nee na kat yi ngeen di def sax borom bi da leen ciy jéggal yu baree baree baree bare waaye su fekkonte ne musiba mu ngeen def bakkaar bu ngeen def lam war a jur ci musiba mu wàccewaat ko nee na kon ngeen jeex walaw yu aaxidu llahu nnaasa bi ma kasabu maa taraka ala zahriha min daaba yàlla bu doon jàppe nit ñi li ñuy def ci bakkaar ku def bakkaar rek bakkaar ba lam tollool ci musiba ñu wàcce musiba ma nee na kon dootoo gis waxuma la sax nit ñi de waaye nee na luy dox ci kaw suuf gunóor sax duutu dox ci kaw suuf kon adduna bi tas min daab bala wax ab gunóor sax duutoo ko gis ci kaw suuf kon ndax bàkkaar yi nit ñi kon nag nattu su dalee jullit daa war a tuub seetaat boppam bu baax muñ itam nag fa tàng-tàng ba lay doone waaye waxuñu nga ñànki jàmbat lu nekk nga wax ko ne ah muñe fi sës waaw koye bu muñ rek muñe fi sës déedéet ne asabru inda sadmatil ula fa mbir may doog a xewe ca tàng tàng ba fa ngay muñe ñu bett la rek jox la xibaar bu doy waar di sa kër ga nangam wax la xibaar bu yéeme sa doom ju faatu wala sa soxna wala sa wayjur wala sa liggéey bu yàqu benn way xëy si ne la yow sa magasin ba da lakk na ba jeex waaw dañoo xëy marché rek fekk sa kala njëkk a jox Noël ba noo recevoir Noël boobu foofu la ñuy seet sa sa ngëm yàlla ak sa muñ ak sa wóolu yàlla fu mu toll noo ko njëkk a recevoir rek bu fekkee ànd ak dal ànd ak tey ne ah loolu dafa gën yàlla moo ma ko joxoon yàlla mën na maa joxaat lu ko ëpp ci coobareem te loola ne ca biir xol ba kon booba muñ nga sant nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mas di dox ci armel yi fekk benn jigéen mu tiim ab bàmmeel di jooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ittaqillaha wasbiri ragalal yàlla te nga muñ mu ne ko ilayka anni sori ma li ma dal dalaa dalut waaw moom xamul ne yonent bi la booba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it nekku fa di discuter ak moom wala di ko jéem a yokk waar ba da ko yu daf ko war a daal di weesu rek dem parce que nit ki itam léegi-léegi fi mu toll yow daa bi da nga koy bàyyi xel léeg-léeg nga wax ak ni mu tontoo la noo xam ne bul bëgg a insister bàyyil ba beneen bàyyil bàyyil noonu waaye nag bala ba fay jógee kut ka kut mbir mi dana leer ci boppam lu tax nga may tontu loolu yow da nga xamut addis bi nee na lii aaya bi déedéet bëgg koo jóorale ki aaya ki addis ki kii te moom booba mi ngi ci situation boo xam ne telu laa déglu loo wax mu tontu moo tax bi mu tontoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sori ma sax la ko wax ilayka anni jógal foofu toppal waaw li la li ma dal dalaa darut yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di dem bi mu jógee nag nit ñi ne ko waa yow xanaa xamoo ki doon wax ak yow kooku mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man de maa ngi jéggulu dama xamul woon ne yow waaye kon maa ngi muñ mu ne ko as-sabru innama as-sabru inda sadamatil ula muñ nag fa la mbir ma dala rek foofa la muñ nga di nekk moo tax gis li borom bi li wax isa asaabathum musiba musi xaalu fa saasa rek xaalu inna lillah wa inna ilayhi rajiun su leen musiba dalee li sa première réaction loolu la war a doon inna lillah wa inna ilayhi rajiun yàllaa nu moom te ci moom la nuy dal su ko defee kon mbir ma day daal di wayef ci yow lool cheikhul islam ibn taymi rahimahullah nee na nit ñi ci muñ ay xaaj lañu mu ne am na ahlu sabri wa taqwa ñoo xam ne muñkat lañ boole ci ragal yàlla gis nga moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy dénk ko def ne ko ittaqillaha wasbiri muñ gu teguwul ci ragal yàlla amul njariñ mu ne ñooñu mooy ñi yàlla wërsëgal ñu bokk ci ñi nar a taxe ci àdduna ak alaxira muñ nañ topp yàlla muñ nañ bàyyi ay tereem ñaareelu xaaj bi mu ne ñoo xam ne nag am nañu ragal yàlla waaye nekkuñu ay muñkat ragal nañ yàlla waaye mënuñoo muñ mu ne amoon na benn waay boo xam ne waa ju mën a jaamu yàlla la ju dëddu àdduna la ju mën a naafila la ju mën a woor la ju mën a sarxe la waaye nag nee na su ko musiba dalee rek mu daal di bayle ko complètement daal di jeexal tàkk jaamu yàllam yooyu yëpp duutu ko tal maanaam daal mënta dékku musiba bu nekkee ci jàmm daal mën naa jaamu yàlla lool waaye su ko musiba dalee rek moom tàggatul boppam ci mën koo dégg kooku ragal na yàlla waaye nag tàggatoogul ci nekk muñkat mu ne nag am na ñoo xam ne mën nañoo muñ waaye ragaluñu yàlla mu ne mooy ñu mel ne kàccoor yi nee na kàccoor yi ñu dëng ñii nee na da nga gis ñuy muñ ci xeeti lor yoo xam ne ba misaal ko sax mu ne mu bandi yéeg agresseur yéeg ñiy dogale nit ñi léeg-léeg yi ñuy jànkonteel ak yi ñuy daj ak fit bi ñu am ak liñ mën a supporter liñ mën a dékku waaye nag nee na am nañu fit mën nañoo supporter waaye nag dañoo ragalul yàlla mu boole ci itam ñi nga xam ne dañuy wut wut a jiitu politiciens yi ñooñu itam li ñuy dékku léeg-léeg wax yu ñu leen di wax lépp ñu ñuy encaisser rek waaw lu baree baree bari ñu toléré ko dañuy toléré lu baree baree baree baree baree bari waaye nag amuñ ànd boole wuñ ci ak ragal yàlla ndax ragal yàlla ga moo lay teree tàbbi ci loo xam ne lu ñu la tere la moo lay tee sàggan ci loo xam ne lu ñu la digal la itam kon nee na ñetti xaaj yooyu moo am waaye ña ca gën nag mooy ñoo xam ne ragal nañ yàlla ba noppi di muñ mu ne xaaj ba ci yées nag mooy ñoo xam ne moom mënuñoo muñ ragaluñu yàlla moom la borom bi naan inna al insana xuliqa halua ida massahu charru jazua wa ida massahu al xayru manua nitu kese kese koo xam ne moom defaruwul ci genn wet nee na borom fit wuy féri féri lay doon fa mu toll rek mi ngi tiit nee na bu ko musiba dalee mu saalit tàggoog sagom dutu xam lu muy wax dutu xam lu muy def waaye nee na bés bu amee xéewal nag fooyu beru ne maa ko amal saa bopp yoonu kenn nekku ci muñ nag am na ay maratib ay daraja bi ci gën a kawe mooy nga muñ topp yàlla ba ca tegu mooy nga muñ mooy yàlla yi ba ca teguwaat mooy nga muñ dogali yàlla yi ñu ne muñ yu xaraam yi dafa nekk loo xam ne coobarewu la waaye nag muñ musiba moom amoo ci pexe xam nga yu xaraam yi moom ya bu la neexee def bu la neexee bañ a def kon muñ gi nga ko muñ tekkiwul ne da nga koo tële waaye muñ li nga xam ne dalaa dal te mënoo koo teggi bu la neexee mu naqari la moom dal na la muñ googu soo ko rafetalee moo gën a fare kaw mu tax muñ dogale yàlla yi nattoom yi moo ëpp daraja muñ bàyyi yu xaraam yi ngay bàyyi moo tax cheikhul islam ibn taymi rahimahullah ne yuusufa muñ gi muñoon bañ a topp jigéen ja ko doon woo ci boppam xam nga kooku lu xaraam la nee na moo gën a rëy muñ gëm muñoon ca bañ ko sànnee ca teen ba ndax loola nattu la amu ca benn soi bu dee ci ndaw si nag moom am na ci soi coobarewu la moo tax muñ na fi jàmbaar la def na muñ gu rëy waaye nag gëlee gën a kawe googoo gën a kawe gii nga xam ne coobarewu la man ngaa def man ngaa bañ a def googu moo ëpp tuyaaba li nga xam ne man nga koo def manu daa wuyu ndaw si bu doon ku suñu borom tabaraka wa taala musalul ca loola kon muñ goo xam ne amoo ca pexe muñ li nga am pexe ku gën a rëy li nga xam ne am nga ci pexe bu la neexoon def mooy gaa ngi nii am nga moye am nga lépp waaye nga ragal yàlla bàyyi muñ googu nga muñ foofu moo gën a kawe lu ñu teg ci sa kaw ci nattu mel na tàbbal gañ ko tàbbaloon ci biir teen ba nga xam ne mu amu ci pexe donte yépp nag ak muñ la gu kawe waaye noonu la ñu rawaatee ñoom muñ yooyu moo tax mu ne fa sabruhu alal faaxisha akmal wa azam wa aksaru ajran min sabrihi ala sijni muñ gém muñoon bàyyi njaaloo googu ko kooku doon woo nee na moo gën a màgg moo ëpp ab yool muñ gëm muñ kaso ba ak sànni gañ ko fa sànni kon mbokk yi muñ itam ci amaalul xuluub la bokk ci jaamu yàlla yi nekk ci biir xol la bokk yoo xam ne jullit bi war na cee tàggat boppam te mooy xam ne mbir mi ci borom bi tabaraka wa taala la bàyyi ko amaa lu la dal ci nattu nga delloo ko ci nit ñi parce que koo xam ne bu amee xéewal boppam la koy askanale wala way juram wala nit ñi bu ko nattu dalee nit ñi la dañ maa liggéey dañ maa bañ dañ maa def nangam dañ maa catu yooyu nag su fekkee yooyu ngay wax nag doo mën a muñ day metti ndax soo jàppee ne nit ñi nga la muumul jotewoo ak ñoom dara ñoo la teg lii day metti mais soo jàppee ne yàlla mi la bind moo la ko teg day woyof waaw ndax danga ne moom sañ na ko fi mu ne li nga mën a supporté ci lu la sa way jur wax mënoo koo supporté ci benn waaye bala ko wax ci mbedd mi ndax bu dee sa way jur da nga naan moom sañ na ko moom ma ko sañ a wax waaw wala sa mag wax la ko ndax da ngay yëg ne am na lu mu la defal am na fu mu la féete fi mu la féetee tax nga mën a supporté lu metti li bàyyi koo ci moom moo tax nag kon pour nga mën a muñ itam mbir mi da nga koy delloo ci yàlla mi nga xam ne moom moo la féete fépp amma soo ko delloo ci nit ñi nag sa xol day tàng fayu sax ngay bëgg doo mën a muñ dañ maa liggéey waaye may itam danaa dinaa leen liggéey waaw dañ maa jibar dañ maa bañ lenn lu nekk nga ne dañ ma ko def boobaa xol bu tàng ngay dëkkee doo muñ kon da nga koy delloo ci suñu borom moo tax ñu ne inna lillah wa inna ilayhi rajiun xam ne ci suñu borom la bàyyi ko waaye nag sabab ba yow la ndax borom bi kat nee na lu leen dal ci musiba yéen a ko jëf fa bi maa kasabat ay diikum wa maa asaabakum min musiba fa bi maa kasabat ay diikum